bu dee ñenn ñi ci tabaski gilee xar ak la cay dem moo leen ñor ñeneen ñi lu ñuy sañse moo leen gën a ñor moo tax événement bi di événement tailleur yi ñu ci gën a bari itamit di dem ci ñoom ñenn yi itamit di daal di laajte lan mooy tendance ren gi lan la góor ñi jël lan la jigéen ñi jël ak événement ren gi ndax mel na comme événement yeneen. waaw événement moom waaw événement moom alhamdulilah parce que nu mu dikkee ren moom waaw ñu ngi sant yàlla bu baax parce parce que boo xoolee Korité bi affaire bi xawoon naa des tuuti mais ñun xam nañu événement tabaski bi dina neex parce que gars yi buñ ñawlu buñ ñaw buñ ñawlawul Korité jàpp ne tabaski dañuy ñawlu moo tax des la la plupart boo xoolee événement Korité gars yi dañ koy jël koy jël dañ koy jëlal élan xoolee ci la xaalis di génn xam nga ci la gars yi jël ñuy jënd par rapport lu bari daal bu xoolee mu gën a am doole daal ci événement Korité quoi alors ren jigéen ñi ban tissu lañ gën a mën ak ban ñaw lañ gën a mën a waaw façon tissu na waaw parce que bés am na ay bor waaw am na façon baro yu génn am na ay pirixe waaw yu bari ay mbasin sûrement mbasin risi moom ba tey mu ngi mu ngi mu ngi dox daal boo xoolee léegi jasnière lu ko nit ñi jënd bëriwuñ parce que boo xoolee qualité mbasin riche bi ak jasnière bi seen différence boo xoolee sorante wuñ boo xoolee léegi lu ko gars yi jënd sax waaw bëriwul boo si ñëwee tuuti daanaka mooy loolu waaw mbasin riche bi daal la gars yi gën a mën a kii daal aussi tissu anglaise yaa ngi fi yëpp gars yi dañ koy jënd quoi mais basin bi moom góor moom côté bési moom non basin bi laal nañ ko bu baax ko coté model ñaw góor ñi lañ lan lañ bari di ñaw. waa tabaski moom xale yi góor yeeg xale euh, ganaar yi ñu si bëri garambu lay ñaw waaw da ngay gis xale yi ndaw ci ñawlu garambu yu baax macha allah xale yi sax moom ñu ngi si garambu yi. waaw garambu daal instant yi moo gën a am doole. te xam naa jour jëli moom boo génnee. dama rek ak gis ñëpp sol garaam bu de waaw mais euh, tamit yéen ngeen toog par exemple ay une semaine ngeen koy fanaan affaire yooyu noonu est ce que méttiwul des fois waaw na métti na métti na parce que tamit boo xoolee affaire bu nekkee sa liggéey en même temps tamit yaa nga ko def di ba ngay nekk xale parce que loolu day nekk sa yaram quoi waaw day nekk sa yaram en da ngay da ngay liggéey ba génn sax yow ngay xalaat naka nga def ba génn si yenn yi da nga koy taamu quoi te boo si nekkee da nga xam noo si noo si noo si duggee da nga xam noo si ve xam nooy organisé woo xam ne lii mooy lii ngay def ba génn si lii boo ko defee da lay sonal ak yooyu noonu da ngay def sacrifice daal waaw parce que boo deful sacrifice doo si génn dafa xaw a métti yow fu mu ne nii euh, ñaat depuis ñaata jour nga baare waaw parce que man moom boo xoolee euh, teel naa teel teel naa baare teel ma baare am na ñoo xamante ne da leen di chaque jour te duñ dañuy yéex a ñëw léegi nag dafa am ñoo xam ne doo leen ñawal la plupart ñu ngi ñëkk ñawal. est que dafay am ñoo xam dañuy woote jàpp place wala. waa day am ñuy jàpp place. la plupart ah, dañoo mën wax nangam ak nangam te des fois client yi ñoo la ko yóbbee. da ngay ñëw nga ne ah man de jël sama ñëw ñu forcé la ñaw bi léegi bu ba sa loxo rek ñoom seen responsable teg pare nañ ci essence mu gé mu pare ci la mu ñàkk pare ci yow la mais boo leen waxoon tey naa jëltuma ñaw rek yow am nga foofu la waa góor yi moom wax dëgg yàlla ñoom seen ñaw moo war a njëkk a pare. lu war parce que war a xëy dem julli ji. te boo xoolee ñoom bu ñu demee julli ji ñëwaat pare nañ ci. ñoom loolu mooy seen seen seen programme. Mm-hmm. mais boo xoolee jigéen ñi ñoom mun nga daakante ñoom sax ba troisième jour. lu leen gën a sonal ñoom ñi bokk na ci ay hôtesse yoo xamante ne dañ koy daal di ñawlu naam ci ay xew lañ ko daal di gis waaye fu mu ne nii tendance la ci kër yi. waaw loolu sax boo xoolee moo ñu gën a sonal parce kii la woon cent pour cent quoi mais léegi boo xoolee dafa am doole moo gën a boo moo am doole ak ñaaw bi sax ma ay temps dama naan du ma jël otese mais wala ba biir xam ne ñaata jël otese enragé wala ma koy jël man xaw xool xoolu moom otese ñaaka otese na doon ñaw rek waaw na ñaw ñaw rek waaw maa leen wax euh, ñu muñ aussi tamit ñu bàyyi xel seen téer en même temps lii événement boo xam ne ne yàggul waaw day jeex léegi rek ñu nekk ci lu ñu nekkoon bu ñëwee ñu gis ñun changement dañ xam ne situation yi moo demee noonu parce que xam nga rek des yu ci mel nii dafa xaw a compliqué te ñaata nit ñooy ñëw si yow di ñawlu yow sa xel mi yëpp day chargé wu kon daal damay lancé message gars yi bàyyi xel bu baax surtout ci sama mbokk téer yi ñu gën a góorgóorlu ñu bañ a fausé rendez-vous yi lu met lu jafe la nag ku ko mën nag moo gën waaye lu jafe la waaye ñu bàyyi xel suñu bopp bu baax di wax gars yi bonne fête de tabaski xam nga rek ñaan yàlla yàlla yokk ba yokk xam nga rek ku si nekkoon si jafe-jafe yàlla génne si waaye yàlla ñaan yàlla daal affaire yi xam nga daal. gannaaw loola ñoom wax nañ ni ren jii naam nit ñi wuy si nañ bu baax a baax ci tabaski gi ni mel ndax ñoom ñoo xam te dañuy daal di rënk korité bàyyi ba tabaski dog koo génnee walla yenn tendance yu daal di génn ay grand boubou yoo xamante ne góor ñi jël nañ ko ren lii mooy tabaski goo xamante ne tailleur yaa ngi koy dund ci at yii.